Maguette euh, Wade maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay si di la ziare bu baax a baax. Maguette euh, Wade nga nekk euh, président leader au mouvement patriotique la citoyenneté et le développement Sénégal rek. Euh, est-ce que mën nga ñu wax un peu seen mouvement bi lan moo waral ngeen daal di koy teg kañ ngeen ko teg ak ngeen ñoo si bokk. waaw mouvement bi xam nga Sénégal daa am benn jamono boo xam ne euh, parti pris c'est une misère ku nekk dafay am foo far ñu fàtte Sénégal ñun nag ñu jàpp ne Sénégal euh, suñ première parti mooy limee te ñun ñoo fi dund kon ñun dañoo war a xool ñu war a mën a def ba. fu coow jibee fépp loo xam ne lu baax la ñu fexe mu dugg ci dëkk mais lépp la loo xam ne aussi warul fee nekk ñu xeex ko donc mu nekkoon benn club d'échange boo xam ne bi Sénégal rek di dox en depuis deux mille dix neuf il était là existant mais xam nga ak comme politique bi souvent day lekk yenn activités yi euh, mu xawon ko jël tuuti mais affaire yi métier lool nag gars yi di saaga di xeex di dóor la on s'est levé et on on disait que de tout côté bu mënti nekk opposition comme pouvoir Sénégal mën nga ko yéene jàmm te doo ko jaaree si xeex saaga dóorante waxante lu ñaaw ndax ñi fi njëkk jaaroon démb euh, rafetoon na mën nañ bañ a bokk jubluwaay te lu ñaaw donc lu mu nekk loo xam ne nag euh, mouvement boo xam ne ñëpp a ngi si biir nag environnementaliste Euh, cadre euh, ñi ci ëpp nag ay ndaw lañ soixante dix pour cent ci c'est les jeunes allo ah oui euh, waaw non non non kii bi la fi ma jaar ni walaay ah, d'accord dama benn oto buy publicité quoi léegi Maguette bi naka nga gisee régime bu bees bi nga xam ne moom moo fi nekk euh, régime bu Diomaye déjà euh, tab nañ ministre yi euh, commencé tab ay DG yu bëree bëri est-ce tànn rassuré déjà waaw <laughs> ndaxte euh, li ma si njëkk mooy gouvernement bi wàññi nañ ko jiital nañ aussi loo xam ne am na solo ñu bëri jël nañ leen te soo xale du sur des bases parce que politiquement sax taxu ñu for noonu donc euh, am na euh, comme Sénégal nag mënoon na may ñëpp moom ñëpp d'accord si ndaxte dañ doon wax ay appel ak candidature ak yooyu waaye daal liñ njëkk a teg daal dal dal na xel pour man dal na xel. Euh, s'il y a des choses nag à améliorer ñu améliorer ko ndaxte aussi bu ñu waxtaanee dëgg rek te yàlla tax euh, yàlla mooy dogal mais Ousmane moo portoon projet war a nekk président du Sénégal. ba bi muy nekk kaso ñuy jàpp Diomaye di ko yóbbu kaso Diomaye xalaatuloon yi mu nekk ni tey situation bi nag li ko def nii mooy Macky dafa amoon nag lu ko métti te ñu bëri seetluñ ko bi daf ko soxla woon na ko bi mu demee nag ba gis yi xeer nañ ko mënatu ko def ko lool nag parce que lool lool lool moom Macky mu ne nag naa sabot saboté saboté bi nag moo andi mu ne élection du am ñu dem ba ne élection am na toujours gars yi génn seen génn kaso négocier génn nañ kaso biñ génne kaso qu'est-ce qui s'est passé immédiatement dañoo dem si campagne mais boo demee si campagne ak coalition biñ leen jàppee PDS Abdoulaye Wade moon na chance boobu buñ ko jàppaat sa gannaaw am na ñuy doxal parti bi mais est-ce que le PS le PS c'est fonctionné parti buñ gis suivre fan la ñuy tase nan la ñuy waxtaanee donc toutes les conditions difficiles insupportables étaient là pesante si lañ dem élection yàlla jox leen ko kon ñooñu suñ ñëwee mais quoi que mënta ñàkk quoi que mënta ñàkk parce que ils n'étaient pas préparés de cette façon à prendre le pouvoir loolu moo tax euh, beneen jeune bi euh, au départ mooy la la la euh, présidence ko dirigé Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye gouvernement yoroon na yéen ci campagne bi dafa continuer ça a devenu un duo aujourd'hui nag tey a ah, ñi ngi dem ba démb ñi ngi wax na Sonko lii mooy laa xam Diomaye leer ndax loolu tamit dafay baax le temps que ñuy egg assemblée def ay réformes pouvoir président bi moom yu mu ko dénk loolu c'est rien je pense que ne à partir de cela aussi affaire dina mën a dox comme ni ñu ko xaaree. Euh, ñu gis ni Sénégal euh, réussir na ci eurobon euh, am lu toll ci quatre cent cinquante milliards ci suñuy koppar yow lan mooy sa appréciation par rapport ak loolu. waaw xam nga boo xoolee maam Ousmane bi mu nekkee dans l'opposition daf doon wax ne euh, moo giir mës nañ def benn débat mu ne ko xaalis bi génn si man de bu ma yéegul du ma lekk xam nga boo yéegee si façon ñoom bi ñu ba yegg si mais réalité pouvoir ak réalité dans l'opposition bokkul FMI bi ñu ñëwee waxtaan bañ njëkk échange ba njëkk am mais dañ ne leen PSE bi dañuy continuer luñ ci améliorer ñu améliorer ko termes yi ñuy changer même si les termes son changés c'est le PSE qui est toujours là maintenant lan mooy xew mooy ñoom lañ gëm jàpp naa ne dans un bu ñu demee ba toog bu mën ko defal seen bopp danañ ko def parce que loolu lañ gëm te effectivement loolu mën naa nekk. bu fekkee ne lii xew si dëkk bi nga gis ni caxar caxare bi demee ni ak xaalis bi ni doon jaaree yëpp foog naa ne buñ naxantee ndànk-ndànk danañ dem nag ba am suñu souveraineté financière bi ñu bëgg mais mënuñ tëb tëb rek ñëw nii def ko ndax euh, levier étatique bi ñu tiim nii tey xam nañ ne il faut y aller doucement c'est dans euh, pas dans la précipitation que les choses vont se faire. donc euh, ni mooy wax rek niñ jotee dëkk bi moo dem ba jur loolu moo tax ah, ils sont obligés nag la faire parce que euh, tey dama lay jox dysfonctionnement yoo xam ne si xalaat mu gàtt rek war nga ko mën a am bu fekkee ne tey ñëw nga ña fa nekk comme li ma lay wax Afrique problème boobu la ñu am quand il vient da ngay ñëw ak say nit ña nga fa fekk da nga mën mën ngaa jom jaawale l'état seen continuité laal ñoo warta laal ndax waxoon naa leen ne ku deful faute lourde bàyyi leen ko ñu liggéey ngeen dawal mais tey xoolal tout tout semble être bloqué. boo jëlee benn directeur nga wàcce ko wàccee benn ministre toog un mois def passation de service mais dafa nekk du dox état salaire yi sax mën naa yéex loolu moo andi problème bi Iran président ba dee waaye dafay mel ni deewul l' état c' continuité boo si laalee loo si war a laal nag te loolu lan moo ko andi ni jotee dëkk bi moo tax il faut qu'il sa concerte concertation bi daal dana leen dimbali si lu bëree bëri. Euh, fi ñu toll nii nag sénégalais li ñuy gën a xaar ci euh, régime mu euh, Diomaye bi moom mooy inflation lekk beeg naan beeg facture ndox yee courant yi est-ce que yow am nga ni yaakaar ni Diomaye mën na relever défi bi waaw xam nga euh, dama ne nit mënta maye lu moomul euh, wàññi dund gi s'il a des acteurs yu mu ko seqal acteurs yooyu ngay toog waxtaanal naxanteeg ñoom am foo leen ñoom am fu ñu wàññi pour askan bi mën koo yëg loolu mooy patriotisme tey bu fekkee ne tey yow yaa ngi am bénéfice cent francs dëkk bi toll foo xam ne dafa métti ñu war koo defaraat saa ci patriotisme war na laa mën nga ne ah état bi na ma wàññil sama DT man ma wàññi dindi sama fukk ak juróom di jël juróom bénéfice ndax am naa ay charge loolu lañ koy waxtaanee mais li ma gëm mooy souveraineté alimentaire ndax Sénégal bu ñu demee ba ñu Sénégal day importer en riz autour de cinq cent milliards te am suuf am naaj bu doy ndox rek a manqué bu ñu defaree ba ndox di am année bi yëpp ba ndox di am année bi yëpp jàpp naa ne dans deux ans danañ am souveraineté waaye tamit ñu boole si nag ak communication nit bu fekkee ne yow yaa toog ne da ngaa bëgg changement ngay expliquer changement ni muy demee une très bonne communication sam bopp la gënal du bañ naan la Sénégal da ngay gis bu ne yokk nañ mburu mi ñuy xëm boo demee mburu liggéey bu ñu yokkee mburu dix francs ñaam bi la ñuy ndëkk man tey bu ñu yokkoon mburu man bàyyi naa mburu fonde laay nit c'est suñ préférence culturelle yi nag dañ koy changer moo tax nañ ne nañuy doxante di dem ndànk parce que constitution bi dinañ ko changé ndax constitution bi constitution tubaab la ñu andil copie collé loolu moo waral ñu nekk ci coono bii nii ba tey assises ngi wax baax na trop de waaye day il foofu lay njëkkee de sans bopp moo la gënal du bañ la ñun liñ moom si la ñuy développé. aussi ñu laaj la si déclaration bi Alioune Tine def euh, jàppee euh, régime Diomaye bi comme état pacifien Euh, na nga gisee euh, déclaration est-ce que partagé nga idée bu Alioune Tine non euh, partagé wu ma ko Euh, ndaxte xam nga grand yooyu aussi tamit pour nga comprendre li nga xam ne difficile nekk na rek président Macky Sall lu yàgg ñu jox ko poste mu dem dans la sous-région kenn déggatu ko woon mooy comme ni comme Penda Mbow génn temps yi di wax rek ay réduction des comptes naan la première daam daf ma doon kii gis nga ña waroon na wax la ñuy wax na ngay wax l'état passé fii ak l'état PDS ak l'état gis nga terme yooyu man gëw mu loolu xam nga li ma gëm képp kuy doomu Sénégal bëgg Sénégal liggéey bi dañ la see sas da nga cee war a bokk maintenant moom na expliqué lan mooy état pastefien sama dégg-dégg de mooy peut-être man sama ko jàppee mooy bu ko leeraloon de dana gën a baax luy état Pastef fii parce que nag Pastef lañ fal. Mm-hmm. est-ce que euh, d'accord nga ak ñiy wax ni euh, président Macky nañ ko andiwaat jugé ko fii au Sénégal euh, ci benn pétition. mais ma Macky il ne doit pas être à l'abri li koy wane rek barki Demba Ndiaye doore bi ñu jàpp daf ne li ma li ma def loo moom ma jaay loo jox ma ay mission yan mission la ko jox dëkk boo xam ne da ngay toog di gis ci télé bi ay nit solul te di jàpp di dóor di damm nit ñi di dee te dañ xam lu leen ay ñu dem ba nee naa la ay ustaas dañoo dem ba nee nañ bu ñuy tëdd dañuy sol pantalon ndax à tout moment mën nañ la jëf xoolal imaam Alioune ndaw ni ñu ko def loolu mu génn di wax ni ñu ko doon torturer loolu yëpp nekk ci ay fen ñu jàpp ay nit rey ci ay fen Adji Sarr génn na bi waaw mais mais mais Maguette loolu xel mënu ko nangu se c'est loolu il faut que ñu leeral ko Cheikh bu njaay ancien DG bu police dañoo ñëw rek la ñu doon yëg mamel ya daanu dee na Aline Bolola Diop xamuñ ko ko rey il faut que ñii rey di def lu leen neex ñu xam ne si état de droit nag bu ñu fa bëggee dem ah ñun il faut ñu juger leen on ne peut pas laisser ces gens là def lu ñuy def ba pare ñu ñëw toog comme si de di di taggante di waxante seen yu baax dans la diplomatie seen fausse diplomatie la loolu du tekki sénégalais xaaruñ loolu sénégalais li ñuy xaar mooy que la justice soit claire et que cette justice soit faite toog sa kër ñu la demal jëndi garab ñu jàpp la tëj la neuf mois dóor la torturer la soo gisee xale yi jënd kaso sa xol bi day jeex tàkk am na ñoo xam ne dañoo dem ba sekkal yi dafa dem ba dañoo mel ni ñuy waajo muumu nga loolu yëpp nañ ko jël teg ci suuf ma koy jàpp di dóor di tëj te nekk chef d'orchestre dem toog Maroc tam di la ay tubaab ah, ñàkk classe ba de un ancien président ah loolu moom xel mu ko nangu de actuellement sénégalais li ñuy xaar loolu ci la bokk leneen li nga xam ne sénégalais ñu ngi koy xaar ah mooy tey jii ah, xel moom mën sa nangu ñu ne bu ñu yéegee dafa am ay institution yoo xam ne c'est budgétaire war ay au conseil de la nga xam ne conseil économique et social environnemental nañ ko dindi xaalis boobu am na fu mu jëm am na fu mu xaj salaire yi ñëpp nañ ko xoolal DG nekk Sénégal gii dafay ku cinq millions dix millions si DG loolu cette forme de bourgeoisie bi nga xam ne depuis le parti socialiste ñoo ko fi incarné askan bi musu leen ñor askan bi musu leen neex toog di def seen ay jëli bopp di dund bourgeoisie o au nom de ce peuple yooyu ça doit arrêter ça doit cesser suñ buggee toog fii nag gars yi continuer di leen déglu ñuy wax lañ waxoon nañ sa góorgóorlu appliqué ko lañ la nga xam ne tey mooy askan bi boo génn si biti sa xol day jeex tak les gens sont trop fatigués te kan moo leen fatigué seen ay say say seen concitoyen fii politique de politique mooy lan mooy noot sa askan yàq sa askan mais c'est ça la vérité loolu war a deñ loolu dafa war a jeex fan yi nag am na ay operation de désencombrement yu bari yu am ñuy jëlee euh, jaaykat yi tablier yi euh, fi nga xam ni fa la ñu nekk mu nekk loo xam nag jeunes yu bëree bari fi ñu toll nii rafetlu ko noo ko gisee mbir mi est-ce que niñ ko euh, si defin bi gis nga lépp looy def si àdduna dafay am concertation gis nga même ñi wax naan c'est les maires de l'opposition c'est faux coté yi gën a am problème c'est les maires du parti qui sont là et qui dépendent de l'autorité préfectorale l'État pouvait arrêter cela man loolu laa gëm mënuñoo ñëw fekk dëkk boo xam ne bi ñuy si fekk na ñëpp xoox ñëpp ñëpp te xoox na ñi ngi boo ñëwee ña xeex xeex ba mooy ñooñu mooy mécanicien yooyu nga gis ñu jëlee leen woon Colobane mooy mooy ñi nga xam ne dañ leen di jëgër piir ñuy daal nekk stade fu nekk ñu dem fa ñu dàqale ñooñu ñoo xeex xeex bi boo yi xeex xeex bi nag ba toll foofu nag boo ñëwee danga nga leen di o ne leen ah danañ leen bàyyi ba tabaski di jàll ñu encadré leen yóbbu leen sympa xool nu ñuy def ñii ñu defal leen a plus de cent vingt cinq corps de métier te am na si métier yoo xam ne si maa nga koy jàng ñu jël leen former leen jakarta man yeeg yëpp encadré leen yóbbu leen si ay si de recrutement dëkk dañ koy organiser dafa war a set nii dëkk bi pour ngol dox boo génnee pour ngol dox sax problème la loolu du dëgg du yoon dafa war a deñ mais loolu nag ña la xeexal xeex bi waroo leen merloo tu viens immédiatement tu fais tomber leur lal moo dégg nga tey discours yu ñu tenir mais yaakaaroon nañ ne seen seen rongoñ jotul génn lan moo ko génnee mais ñàkk communication la un pouvoir il faut qu'il soit social social pour pouvoir bu ñàkk sociale mënul yàgg Afrique social boobu nag noo koy amee mooy waxtaan booy ñëw leen booy amuñ luñ lekk amuñ lu ñu dañuy daw dépense dépense yi deux mille francs trois mille francs dañ koy régler bu leen koo xañ tabaski baa ngi nii fan lañ jëm ak seen njaboot nga jëlal leen yëkkati leen jël ay jaaykati xar teg leen mel ni ñoom duñu ay duñu ay sénégalais mais sénégalais ak sénégalais warul am loolu quand vous demee dégg dégg répété tout le monde bu fa bàyyi jaaykati xar yi mais génn leen teg fa jaaykati xar yi dañoo waroon a xaar ba tabaski bi jàll bi tabaski bi jàllee nag li mu fi nekk dafa dëgg ripir Hmm? boo tabaski bi jeexee na nga leen eh defal nañ leen Macky defar na sempa aca yéen ñëpp na ngeen dem jam ñaajo atelier yaa nga fa magasin yaa nga ñu defal leen formation encadré leen mais dooleen leen bàyyi nii ñuy traîner nii booy booy jakartaman yi boo dawee tuuti ñu jàppale fay loolu ay amende te mille francs nga si ou deux mille pour joxe dépense ça pose problème te nag booy yooyu li tax ñu méttee gere ñu si bëri c'est des ouvriers am nañ fit mën nañ xeex ñeme nañ waaye buñ toogee defuñ dara day métti de il faut ñu teel leen a toppatoo ubbi seen téléphone yi di wax ak ñoom waaw ek que wax ji mënta nekk benn mënoo ànd ak ay nit xeex ak ñoom ba yegg fi nga yegg ku la jot loolu loolu loolu c'est pas bien il faut qu'ils communiquent et leur communication et qu'ils ñu restent disponibles à, par rapport à ce même peuple qui a trop souffert et qui continue de souffrir. voilà merci Maguette Wade en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax. waa maa ngi lay delloo aussi remercier di wax ne aussi tamit euh, école bi li ci président wax système bi c'est obsolète dëgg la. Hmm. waaye ñu góorgóorlu ba euh, njàng mi. chinois yi si seen langue la ñuy jàng. américains yi seen langue nañ jël suñ langue yi di si jàng ñun si sump ak néew lañ juddu nañ changer constitution bi tëggaat ko selon nos réalités culturelles et religieuses de ce pays lool mooy tax ñu jëm ci kanam mooy tax ñu développé. may fàttali ni Maguette Wade yow yaay euh, président wu mouvement patriotique pour la citoyenneté et le développement Sénégal rek ñu ngi lay jaajëfal ci disponibilité bi. maa ngi leen di delloo semaine jógal di leen ñaanal. semaine jógal di leen semaine di leen.